ci sama est-ce que du waa nguur gi est-ce que du Bassirou Diomaye Cheikh Tidiane Dièye. c'était de la diversion ba ñoo na bokk est-ce que du électoralement politiquement est-ce que du loolu moo gënoon a euh, am portée. Hmm. c'est-à-dire euh, que Karim Wade. gis nga loolu laay wax ma ni. Hmm. recours yi ñu introduire contre Bassirou Diomaye fay ak Cheikh Tidiane Dièye c'était pour masquer. le recours contre Karim waaw les c'était de la diversion d'ailleurs nu ñu ko libalee sax baaxul moo tax sax conseil bi rejeté ko yaa ngi dégg bu baax. donc euh, ñoom Bassirou Diomaye ak ñoom Cheikh Tidiane Dièye yittali ñu leen woon. ñoom du ñoom ñoo leen intéressé. non non en en en annonçant ça génnee génnee soi-disant benn photo buy wane euh, Cheikh Tidiane Dièye auprès de de de de Ousmane Sonko. tudd Bassirou Diomaye Faye qui est le candidat de Pastef gaa ñi dañ naan ah c'est sérieux on attaque vraiment kii mais c'est pas ça c'était de la diversion amul woon benn portée mënul woon jàll coup bi c'était contre Karim suñ ko defoon tout seul contre Karim coow li teel a jóg mais suñ ko defandoowee ak Karim ak joomaay ak Cheikh Tidiane Dieye dañu naan ah c'est normal période de recours la def nañu ay recours mais c'était de la diversion le but visé c'était Karim et ça vient de Amadou Ba ça vient du pouvoir ça c'est un héritage c'est une tradition de ce pouvoir en place depuis 2012 dañuy utiliser les voies les cours et tribunaux pour xeex les adversaires politiques mais c'est euh, tout mais mais aujourd'hui mm-hmm. la menace politique la plus sérieuse elle vient du camp de Yewwi suñu basé wo ci dernière élection yi mhm. pour man et j'ai même pas compris que les gens du pouvoir ñu raté seen recours contre Bassirou Diomaye ak Cheikh Tidiane surtout contre Bassirou Diomaye peut-être que foofu laa lay rejoindre un peu. mais man bon bugguma sore trop bugguma sore trop si xam nga man sax xam nga tout à may commencer man je je kenn rek laa doon tudd mooy Amadou Ba. Bassirou ak ak Cheikh Tidiane Dièye vraiment awma ak ñoom benn problème ce sont des personnes de commerce vraiment très agréables xamante nañu ni amul problème donc moo tax ma leen di tudd mais ma dara contre ñoom man Amadou Ba laay wax. dans son cinéma. mais ñi la ñoo gën a nekk menace politique pour ñoom mais su ñu nekkee menace aussi ñoom xam nañ ni mënuñu leen amuñu dara contre ñoom en fait il n'y a rien lan la ñuy reprocher Cheikh Tidiane Dièye sa candidature amul dara lii ñuy wax ni ay caaxaan la Bassirou lan lañ koy reprocher ça n'a pas de sens moo tax ces ces recours là ont été rejetés Karim nag. Euh, comme que on s'est dit que bële yoon c'était euh, la non-présence sur les listes électorales bi yoon ah euh, lu ñu mën a attaquer mooy la binationalité nañ ko attaquer et voilà malgré tout <laughs> ils ont piétiné le décret décret bi génn wax ni Karim n'est plus français ñu ni non euh, au moment ba muy déposer il était français mais au moment ba ñuy vider le juge au moment ba muy vider